la na ak utis muy a lamp bi ah daa am goraa de day maas day maas day maas sëñ waaw day maase xam nga fii dafa yàgg maase mboolem ko yaroo ci koñ bi dëkk ci koñ bi xam nga ni poto lamp bi day maase ndax yàgg na fee rey ay xëy xar yàgg fee rey ay bay tey nag booy bii la fi rey te yàgg nañ koo signalé waa Sénélec booy bi war naa am ay juróom-ñetti at war na koo am juróom-ñetti at te loolu jëru deegu gaaw gi nii mu dee nii te Sénélec ñooy paar waa Sénélec ñoom ñooy paar waa Sénélec ñoom li ñu bëgg mooy ñu dimbali ñu ñu dindil ñu ko poto lampe yi mas ci koñ bi nañ ñu ko dindil bala ñoo dee amutuñ jàmm amutuñ salaam suñ gone yi amuñu jàmm amuñu salaam nan ñu dimbali bala ñoo courant bee jeexal wuyu ma wuyu baara la baara saw laa tudd laa dëkk ci koñ bi yàgg naa bi jafe-jafe mooy poto lampe yii di rey nit ñi waxuma la waxuma la jàppale day reyee at ni nga ni nga déclaré ñeenti at ni nga déclaré ñoom na kon lu si maanaam waa Sénégal ñoom noo ko tay noo ko tay parce que lu man ñeenta nu leen nga déclaré kii rey na fi rey na fi aw bëy rey na fi aw mbaam rey na fi aw nag rey fi aw fas jàpp fi aw nit ñu sofe ko waaw kenn musu fee teg tànkam kenn musu fee teg tànkam li leen di ay yoon yoon yoo xamante ne kenn kenn musu fee teg tànkam suñ ko mënee nag nan lu dindi fi potay dindi waxuñu lu koy baare de nan dindi potay ñun loolu lañ bëgg soxlaatuñ fi potay wen ci koñ suñ xale yi ni ngi dee mag ñi dee waaw te boo fay te boo ñetti ñetti poto ñetti poto la ci koñ bi yëpp dañuy rey amul benn bu dul rey yëpp comme parce que affaire bi mu dañoo ñëw ci sensé comme tey ni ñu ci sensé su fekkoon ne ba ko déclaré ñëw nañ ci sensé lii lépp du am tey te du bii dongo xam fi bari benn deuxièmement mooy courant central bi nga xam moo fi jaar am nañu maçon yi maçon yi li yi ci maçon kenn xamu nu toll mooy filu central bi nga xam moo fi jaar yor courant direct temps yi gars yi ñu di def liggéey di ñëw mais dañ ci war def lu gaaw parce que central loolu il faut ñu jàpp nañu li leen di ko déclaré nii nii maam ni leen kii dafa dee urgent courant bi ko jàpp ba leen ko déclaré ay maintes fois bu ñu ñëwoon rek tey lii kon lépp rek ñoom waa Madiane déclaré naa ko ñetti yoon ñetti yoon woo naa lek ñu jox ma seen code ne ma dana ñëw ba mu mujj barki démb talaata laa mujj déclaré ñu ne ma dana ñëw may leen nag bala ngeen a jeeke dangay def jéyee ngeen dóori ñëw kon tey li ma wax ñëw na léegi nag li ñu bëgg mooy porte-benn yii waxuñu defar nañ ko fi jëlee mooy wax muy gone ko ndaw nag yar am yar ami teggin am kersa soo fekk li xóor mukk nga fekk ko ca doo dégg lu mu wax ni du saaga mag du saaga gone ama bu yar amee teggin wax dëgg yàlla léegi dong la génne ci kër gi léegi léegi daa génn dong ma ñu wëlbati ko dikk ma seexu naa nga tëdd fee ma génn ndaw dikk ñu ne ma courant commence loolu daal la ci am amuñ ci leen loolu léegi la génne ci kër gi yaay mi nag daa jaay woon yëgu ko mi ngi nii di door rek si. ay seex lañ waaw ay lañ. maam Thierno ak Cheikhouna. waaw wax ne portée courant yi sax doon nañ leen yi. poto yi am na fi poto am na fi poto am na fee mu dee ak poto bee ceeg fee muy ñeenti poto ak bii fii bu ci ne am na poto poto bi ma rey na buy ba taay. Hmm. boobee mu ko gaañ nee ñu rey na buy ba taay waaw wax dëgg yàlla hmm. loolu de la. kon ñu ci dimbali nag kon ñu ci kon dimbali nag dindal ñu pata pata yooyu sant yàlla ndax wax yàgg yàlla metti na lool metti na ndax gone goo xam ne dara dalu la nga yéene si néeg doo nga xam naa daa toog wéeru ca pata ba nga xamu ci dara xam nga ne loolu rek la amoo yar amee teggin du dox du wax wax dëgg yàlla fukki na fukki at mosuñoo tooñ kenn mosuñoo def kenn dara wax dëgg yàlla di sët sama sët bu ma bëgganti sama xol bi nag li mu doon gone damaa bëgg lool bëgg yaayam yërëm ko doo fekk lu ko mu ko nga fekk ca maam Thierno kii seexu eh, eh, naa déedéet wax dëgg yàlla maa ngi ñaan ci doole sëñ Tuubaa nag yàlla na ko yàlla yàlla na fa doon dawal bu yiw te yaayam jiite di yàlla jox ko xol bu mu ko muñee te yàlla fay ko ci keneen ba xolam sedd wax dëgg yàlla